suba bu mu sax sedd nit ñi di taxaw di wane ka ne dañu ne nangam ak nangam panel yi le fait que jaar ñi ñuy jaar dañoo war a dañoo war a ça joue. meeting baa dañoo war a ça joue dafa bokk ci li nga xam ne mooy pression bi ci war mais nag li may bañ mooy sénégalais yi nit ñi jóg di xeex li ñu war di xeex. ñu am jom ñu ëpp sax laay wax dañu am jom parce que Ousmane Sonko moo gën a populaire mais lu tax sonk gën a populaire loolu c'est mati lu mathématique la dafa yomba wane parce que bu su bu nit ñi amul woon jom bu nit ñi baaxul woon mais duñ duñ dem sam Sonko ëpp ci fuuf kon kon li fi daan am moo fi am li topp sonk bu toppoon Lat Joor kaaw Sénégal la mhm. li topp sëñ Sonko bu toppoon bi sëñ Tuubaa di di di di woote kaaw Sénégal réglé parce que nombre bi comprendre benn waay benn leader loolu masul am Sénégal. Hmm. loolu nag boo ko amee du xët xët moo koy conserver mais du ak tapet tamit moo koy conserver. nañ waxante dëgg du affaire ragal mais nañ ko jël gis nga pouvoir boo ko yoree da nga koy jël ak responsabilité. Hmm. cuune rek mooy yor pouvoir di ko utiliser parce que Macky Sall yor pouvoir la mais ni mu ko utiliser est-ce que baax na. ci tappale la ko utiliser ci jaay doole ci ci ci ci ci ci sànq nii fi ma nekk léegi la benn booy boo xam ne cag-cag la yore fi may añee benn commissaire police a booy bi naaw ci kaw waajee ko menacé mais da ko tifaari saaga ba paa bi taxaw malgré booy bi xam na ne mujj commissaire la mais dafa sax dafa continuer dëggal boppam billaahi li ma lay wax nii xoolal ça même pas quatre de temps man bokk naa ci ñi doon jàpp yaay xale bi ñëw di raamal commissaire bi mais booy baa nga fa mu nekk delluwaatu majeure partie sénégalais yi fi ñu nekk pël maa la mën a wax ne jamono bii ma kañ la Sénégal sa jàpp naa ne mosuñu ñàkk fit mais buñ mosoon a am fit léegi la raw gis nga sance bi ñu yàlla may parce que dañu am ay ay ay ay option yu ñu teg que nit nangu ko wala mu bañ koo def gis nga loolu mm. mooy suñu doole fii ñu yegg si mbir mi nekk ci ñoom xam nga tey juge bu bu bu bu bu invalidé Ousmane Sonko mais après pour lan xanaa yow da ngay pare ñu jox la xaalis nga dem France tëdd ma ki Sall maanaam maanaam nga invalidé Ousmane Sonko ba pare parce que bu doon fi Karim Wade tollu lañ toll man damay nangul ñi doon wax ne nañ wàcc rayante léegi léegi léegi mu jeex parce que Karim amul woon option su doon fi xalifa toll damay wax loolu léegi léegi ñu dem régler ko parce que problème bi mooy. am réew waaw léegi yow yow mooy problème bi. non bi weesu wut. candidat yi ñu teg muy trois candidats ak Ousmane Sonko muy quatre loolu mooy indi Ousmane Sonko ci biir su ko indiwut li fi nekk mooy am. li ma yàgg mooy mooy président li fi nekkul la fi nekk mooy président par transition. un an pas plus wala bu baree ba baree un an six mois. saa lii saa lii est-ce que xam nga ni lii boo ko waxee dafa mel ni que da nga éliminer da nga écarter Ousmane Sonko. bu la neexee nga déggee ko noonu mais. jàppale non non eh, dama lay wax rek man sama xalaatu bopp. Hmm. man loolu laa la ko xalaatee. Mhm. waaw non d'accord da léegi nag keneen mën naa xalaat bu gën a rafet boobu pour man groupe loolu moo koy doxal. parce que bu doon loolu la maam Ousmane Sonko mi ko xalaat mais amuloon sens mu koy xalaat. kon bu fekkee ne dañoo am ku ñu yab moom mooñu ñu yab kon ngay wax lu tax maanaam moom ñu jiital ko ñu yegg si ba fii mu nekk ci biir di wutal nit ñi ay option parce que tamit tànk day tàlli wala mu bank soit ñu gëm ne Ousmane ko dañ koo fenal defut loolu waaye laa ñu gëm ne moom la ba pare wóolu ko. Hmm. ba pare wóolu ko waaw. xam nga ñu ngi jëm ñu ngi jëm ci suba avocat yi def nañ recours. waaw ah. léegi lan moo war a nekk taxawaayu sénégalais pour juge nekk conseil constitutionnel dellu ginnaaw. man dama nangu pression bi ñuy def pour suba parce que Ousmane Sonko perte benn droit am loolu dama ko nangu fa mais damay bëgg tamit ñun bu ñuy dem di xeex benn affaire tamit ñu xam lan moo nekk suñu portée. est-ce que jàpp nañ ci dara wala jàppuñ ci dara ñun dañoo am mbir yu am ñu bëgg a tànn ñu ñooy tànn ñaar ñett ba ñeent soit ñu raag suba bu leen neexee bu ko ñëpp nangoo ñu ànd def ko amul benn problème man en tout cas bu ko sénégalais yi buñ doon taxaw di ko def tey du ma ca dellu ginnaaw mm-hmm. mais bu mu nekk lu ñuy jël à la légère ay benn ñaar dem def ko fii après ñooñu ñu góorgóor leen ñi ci des continuer di balaxal ma daa man loolu laa d'accord bu dee ñàkkante rek sama jëm jëmm ji moom yaakaar naa suñ borom dong laa ci ragal d'ailleurs sax bu ko jëloon tey man amul problème parce que damaa jàpp ne def naa fi lu rafet suma demee damay dem àjjana man loolu laa gëm parce que damaa jàpp ne defal naa yàlla li ma defal yàlla moo gën ci yërmande man na maa dugal ki man aw aw ma problème mu dem tey wala bañ a dem. Mm-hmm. mais nag su ma gisee yàlla may la loo xam ne nii ay ay force yu bari nga war ko tànn am lu mat ñetti yoon yuy jaar yaay tànn léegi nag bu mbooloo mi ëpp tànnee war a wax ne dañoo war a raag bu ma sax gat sa gat raag allons-y bu fekkee ne dañoo war a. bàyyi dara par exemple. waaw suba génnuñu. dara xewul. Macky Sall éliminé ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko. Mhm. même candidature Bassirou Diomaye Faye dafa nekk candidature bu incertaine ñaar. Mhm. en plus même su fekkoon ni dem na Macky Sall Ousmane Sonko rek moo ko tër mu ne 25 février 2024 sàkki na élection yi élection yi gagné na ko comme ni mu ko defee woon en 2019 gars yi génn bu génnee loolu day nekk trop tard ba noppi boo leen génnee mu génne leen armement yi nga xamante ne gëndaloon ne ko mu rey leen mu continuer di woyal donc je est-ce que bu ñu toogee di layam layam yi du trop tard parce que Macky Sall depuis bi di xeex moom di ko mettre la pression di di génn di def gatsa gatsa da doon reculer mais bi ñu commencé di nem nemal manifestation bu waa Pastef def ñu annulé ko lu nekk ñu ko bëggee def ñu annulé ko parce que Macky Sall xamul jàmm rapport de force la xam bu ñu leen mettee la mettre la pression dina dellu ginnaaw mais du moment où ñu croiser les mën naa waat ni Amadou Ba 2024 mooy gagné élection yi ngeen continuer ñuy toog di seetaan c'est loolu moo fi sës ñaari affaire yooyu. non man nag man nag xam naa ne du demee noonu. parce que la génne nit ñi mars 2021 gis nga tey su fekkoon Ousmane Sonko amul yeneen option yu mu jàpp nga xam ne buñ ko éliminer jeex na man jàpp naa ne la xewoon day xew bu boobaa li nga wax nii lay d'accord kon nag dans ce cas Sonko moo juum moo wala juumut. Mm-hmm. dans ce cas Sonko mi wut yeneen trois options kon moo juum kon moo saboté combat bi moo yàq xeex bi kon dañuy ànd d' accord ci loolu bu dee d' accord nga ci loolu ñu continuer boo ci d' accordul ma doog laa indi ma ne dans ce bu fekkee ne yow da ngaa gis ne loolu mooy am kon dañuy nangu bokk ànd man ak yow ak patriote yëpp ñu jàpp ne Sonko moo juum moom mi dem ba combat bi tol fi mu andiwaat trois options. Hmm? ah bien sûr. tànk day taali wala mu. banque non Sonko kay yàqul combat bu juumul rek kon nañ ko wóolu. nangul voilà voilà su fekkee ne maanaam ànd nañu ne juumul. kon yow it ma la wax. waaw bisimilah. attends attends may kii saa ñëwal. dafa xam nga dama laa dama laa laaj benn laaj sànq. ne la est-ce que kon du Sonko daa juum nga ne ma juumut. Hmm. léegi kon nag man comme yow xam nga ne juumut kon nañu ànd jël option yu ñu yàlla jox. parce que li ñu am nii. Hmm. ay nit jaar nañ fi. Mm-hmm. amoon nañ doole amuñ doole donte na mën naa nangu fii ne amuñ doole bi Sonko amoon. Mm-hmm. Abdoulaye di jaar na fi amul doole bi Sonko amul amoon teewul raag na ba gañe mm-hmm. loolu tamit nañ ko wax waaye comme yegg si nañ fii ci lu masta am te Sonko bi ñuy ànd ak moom ba ànd ak moom chaque fois mu am lu mu génne loo xam ne wala dara loo dara dab ñu loo xam ne mosuñ koo gëmee jàppuñ woon ne génie politique boobu dana am nañ ko ànd wóoloondoo taxaw taxawaay parce que suba suy am bu wóoree ne juge bi nar a invalider Sonko wóor na ko ne bu invalider Sonko tamit joomaayay jàll invalider Sonko. Vincent day jàll. waxaguma damay damay wax du joomaay rek kay candidat nag soxna si. Mm-hmm. damay wax pareeguma man xam nga man samay wax xooluma lu lu lu lu lu loo bëgg a dégg parce que man bi ma dalee wax lii may wax booba sax waa Pastef waxaguñ ko. kon du tay ñëwaat di dox ci nangam nangam yi wala di xool lu neex nit wala déet sama xalaat laay wax. Mhm. ma bu wooree gis bi ne su ma invalidé Sonko joomaay day jàll boobu gis xanaa mu pare dem Amérique te di fa. wala bu mu ne bu ma validé invalidé Ousmane Sonko ak joomaay damay pare euh, keneen falu. may pare keneen falu ku dul sunk ku dul waayu Sonko bu ma ko defee. non dama euh, dafa dagg dama ne bu wóoree ne juge bi xam nga dama laa ñëwal ci Sonko. day hmm. falu du ko def. su ko wóoree ne bu boolee Sonko euh, euh, Diomaye invalidé Cheikh Tidiane Dièye day jàll du ko def. waaw non xam nga man nag bu dee sa live bëggoo dégg sama. waaw waaw conti waaw waaw problème continuer. non non pël man mënuma wax ak condition yi dem bi may wax ak benn journaliste mu naan ma ay sonko nangam. waaw continuer ñu ngi lay yi koy wax. jërëjëf nuyu di la ziar. moo ko tey da continuer bàyyi ko mu continuer. voilà mm. voilà xam nga mm. dama wax ne léegi ma tëb ma tëb léegi joomaay Mhm. ñëw ci Habib Sy bu mujj bi pour nga gën ma dégg. juge mhm. bi invalidé Sonko suba te wóor ko ne bis bu invalider Sonko. Mhm. Habib Sy mënoo jaar fenn ba invalidé ko. ba pare bu demee élection ci opposition bii ma gis mënoo jaar fenn ba gañe leen du ko def gis nga yaawu ndere. ba mu xamee ne bu bu bu bu bu joxoon dëgg Gbagbo su paree euh, situation bi day renversé wu après moom mooy teel prêter serment Ouattara du ko woon def juge yi ay nit lañ dofuñu